asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di ziaral ñëpp tey nag ñoo ngi ci secret fatiha bu am doole lool mbokk yi ku na xam ne fatiha dafa nekk cent vingt quatre lettres waaye cent yooyu dañ cey génne vingt et un lettres mooy lettres yi nga xam ne moom la ñuy wax bi xëyri takraarin maanaam masalan tey alif bu ñëwee ci fatiha fukki yoon masalan misaal laa joxe rek ëpp na lim ñëw lool sa waaye nga jël ko benn yoon raa noonu siin noonu ba fa mu yem moo la jox tur wi ñuy wax arsata maksuhu alqabidu xata danzariyu muy turu fatiha bam doole moo jàpp trois mille cinq waaye mbokk yi foofu dafa am beneen génwaat bu ci am mooy pour nga xam ne fatiha léppam baatin la arsata maksuhu alqabidu xata yu trois mille cinq la waaye boo ci moyen six cent quarante-quatre muy ismu jalal ahmu saqa gu xalaw yesu di jàpp ruuxu nafs su ko defee da ngay am deux mille cent soixante et un deux mille trois boo ko divisé par trois da ngay am sept cent quatre vingt sept muy basmala kon gis nga la ak jalaal ñoo tënk fatiha mu nekk lu am doole moo tax tur yu am doole lool day ñetti basmala yu ñu dolli jalaal waaye mbokk yi dañ ci dañ leen ci indil doxalin bu am solo lool. muy da liggéey bismillahi rahmaani rahim deux mille trois cent soixante et un muy ñetti jafashun nga liggéey ahamu saxaku xalaaw yesu six cent nga soog a indi tur arasata makk suuhu alqabidu xatadan zaxiyu trois cent fois nga koy liggéey nga nga indi rawaan bi di ajib li yaa ray xaax shahaza makratala yaa ilu téeméer incha allah ku koy liggéey danga nga wërsëg da nga am kashfu da nga am leer sa diggante ak sa borom Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes revenus avec un grand secret de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, vous comprenez que ces lettres se trouvent au nombre de 124 lettres. Mais si vous prenez les lettres non répétées, c'est-à-dire tu prends alife une fois, Ra une fois, Sin une fois, jusqu'à Ya, ça te donne 21 lettres. Ces 21 lettres-là sont composées de arsata maksuhu al-qabidu hatadan zaghiyu c'est un grand nom de Dieu son poids mystique mais son poids numérique c'est 3005 mais si vous prenez 3005 et vous faire une soustraction une soustraction de de de, de Ismu Jalal 644 c'est-à-dire 3005 moins 644 ça donne 2361 si vous le divisez en trois parties ça vous donne 787 et 787 c'est basmala ce qu'on appelle jafashun. Donc, si vous voulez travailler ça, il faut faire Bismillahir Rahmanir Rahim 2361 fois. Et vous amenez Ahamu Sakhaku Halaou Yasu fois. Et vous amenez Arsata Makasuhu Al-Qabitu Hatadan Zaghi fois. Et vous amenez le Rawhan Ajibli Ya Raiha Shahaz Makratala Ya Ilu 100 fois. Et vous faites votre doigt, Inch'Allah. Dieu va exaucer votre dua, Inch'Allah. C'est un grand secret de nom de Dieu. Euh, parmi les non qui donnent beaucoup de richesse et beaucoup de lumière envers Dieu, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.